mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci amaat mbégte di ñëwaat ak yéen seen jotaay yi ñu amal ci Daaru Maarif al Islamiya ci ci nafar ci sëriñ bi ñu tàmbali woon téere boo xam ne sëriñ baa ngi ko bind ci tawxiid ñu wéetal yàlla tuddee ko Faydul Maghâniyil Mawlûda kon tey mooy suñu ñeenteelu bind Euh, incha allah ñu fas yéene euh, àggale fa ñamoon kon ñetti bind yi jàll ñu ci doon wax euh, muqaddima bi suñ bi def ci téere bi ci leeral naaw tudd yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan yàlla def téere bi ñaan yu wute gannaaw ba nag amaan na beneen muqaddima boo xam ne daf koo defaat ci leeral xaaju diine kon fa la ñu tàmbalee tey incha allah kon ni nga ko xam ne diine am na ñetti xaaj muy al iman al islam wal ihsan te noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee ci xadis boo xam ne ñëw na ci euh, al buxaari wa muslim maanaam buxaari buxaari indi na ko ci téeram boobu di as saxeex naka naka noonu al imaam muslim indi na ko ci téeram boobu di asaxeex kon day xadis bu boo xam ne lépp dëppoon nañ ci wala boog borom xam yi nga xam ne ñooy gëstu ci xadis dëppoon nañ ci kon te mooy xadisu Seydina Jibril bi nga xamee ni ñëw ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu toog ak saxaaba yi mu ñëw ba jege ko lool comme ni ñu koy waxee laaj ko ay laaj bokk na ci ko laaj nag lan mooy iman mooy li ñu gëm yàlla tontu ko tontu wu leer ne ko gëm yàlla juróom-benn la mooy gëm yàlla ci boppam ak yi ak téere yi ak yonente yi ak bis bi ak dogal gannaaw bu mu laaj ko lan islaam mu ne ko amul juróom la mooy gannaaw seere yi da ngay julli di joxe asaka di woor weeru koor dem aju Makka soo ko manee mu laaj ko lan mooy al ihsaan mu ko mooy nga jàmm yàlla ba mel yaa koy gis te soo ko gisut xam ne moom ñu la gis xam ne kon ñett yooyu moo tënk moo tënk diine ji moo tënk lislaam moo ko eh, sidna Jibril alayhi salaam leeralee yooyu ba mu demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa leeral saxaaba yi ne leen mooy sidna Jibril dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine jaa li yuallimakum diinakum kon ci ciy dégg ne kon diina jënd ñett yi moo tax sëriñ bi ci téere bi mu indi ci ab dog boo xam ne daf ci lay la ñett yooyu mooy li mu waxee ne li mu wax ne aqsaamu diini diinillahi bil jalaali al mutxifi saa'ili bil amaali alaafatun wa inda alladi abdaahu ahmata kullin murgiman adaahu mu ne kat xaaji diine yàlla ji kat yàlla mi nga xam ne mooy borom taar ba tey jox aji laaj la mbëgg ngeen xam ne ñetti xaaj la waaw fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne yàlla moo ko feeñal mu yërmaane ñeel ñëpp waaye nekk koo xam ne képp koo dafa noonu yàlla mooy sa alkande kon wax ne kon nag ñetti xaaj yooyu la mu tàmbali ci njëkk mooy awaluha duuna mtira al imaamu wa man xawa wa man xawaahu jaahul amaamu kon bi ci njëkk mooy gëm yàlla ñu ko waxe woon léegi al iman mu ne ko xam ne nag am na iman ba day am kóolute am sécurité wa thani min gayri istira al islaamu wa man xawaahu jaahul jaahu salaamu mu ne kon ñaareel bi mooy al islaam mu ne koo xam ne am na islaam nag dana am jàmm islaam mooy may jàmm saalisuha bila xafal ixsaanu wa man xawaahu jaahu l ixsaan kon bi ko ñetteel mooy al ixsaan ko waxee léegi donc kon ko xam ne am na al ixsaan dana am rafet rafet maanaam léppam day rafet ndax al mooy eh, gannaaw bi ci gëmee yàlla di gise ay santaaneem di ko def ngir yàlla tax te sàmmanteeg tëgg ni ca war kon ñett yooyu mu ko waxe woon léegi mooy xaaju diine sëñ bi tënk ko ci biir yooyu léegi nag bu ko defee eh, ñett yooyu li dafa am yenn bi ci nekk lu koy firndeel bi ñu al eh, ngi wéere ci tawxid ñu wéetal yàlla bi ñu al ihsaan bi ngi wéere ci ak ñenn di ko tuddee al furoo bu dee al eh, yooyu benn daa am xam boo xam ne moo koy jàngat di al iman xam ba koy jàngat di gëstu moom la ñu wooye eh, al tawxid wala al aqida comme ni ko waxoon ci ginnaaw am na ay tur yu bëree bu dee al islaam xam-xam bi koy jàngat di ci gëstu mooy al fiq waaw bu dee al ihsaan xam-xam bi koy àndal di ci gëstu mooy ak tasawuf kon moom la sëñ bi leer ci bay bii ne fa sixatul imaani bi tawxidi al jaalibi al qalbi ila al waxidi ma ne kon al imaan mooy gëm yàlla mu ngi wéree ci ak tawxid kon gëm yàlla na mu waree daa a jàngi xam-xam tawxid moo koy may mën a xam lam war a gëm ci yàlla lam war a yàlla te nag yàlla ci moom kon mu ne xam-xamu tawxid mooy wamal nit ki yóbbu ci wéetal yàlla waaye yóbbu ci yàlla mi nga xam ne ay wéet waaw mooy ñetti xelub jaam bi yóbbu ko ci yàlla mi ay wéet al jaari bil qalbi ila al waxid mu ne wa sixatu l islaami bil furuuxi bil furuuci wa hiya allati tutxasu bil buruuci mu ne kon islaam mi ngi wére ci alfiq ñeen ñi ñu ko tudde alfuroo kon nit ki su bëggee xam al islam mooy lan day dem ci am ko mu fekk moo koy jàngal lan mooy islam te mooy ñu ko waxoon léegi rek te aju julli ak euh, joxe asaka ak woor ak dem màkka mboole mi nga xam ne moo yooyu ci ay furoo euh, kenn ñu ñu wooye al ibadat wala al muamalat kon ñi ko ñetteel mu ne mooy al ihsaan rafet mooy rafetal mi ngi wére ci at tasawuf kon kon at tasawuf mooy xam-xam yi nga xam mooy jàngale al ihsaan moo tax mu ne wa sixatul ihsaani kon xam-xamu tasawuf moom la al ihsaan di wére mu ne nag xam-xam boobu mooy al kaamil al mukmil mooy xam-xam bi mat tey matale waaw ah. ah, ñeel ñeel sopp gi kii ma ko kii ma ko ñu wëllëre xam naa loolu ci ñun lu boppam ginnaaw kon gis nga ne indi na ñetti xaaji diine yëpp benn bu ci nekk leeral benn bu ci nekk ci la muy wéree kon ah, ëpp bi loolu ci ñu leeral te ni ñu ko leeralee fii ne ko noonu la ko leeralee waaw kon ni ñu ko waxee woon rek kon ñett yooyu mooy yi nga xam ne mooy xaaja diine te sëñ bi leeral na ko fii ci leeral bu am solo daan wax ne it ñett yi mooy yi nga xam ne képp koo xam ne taxu na moom ci àdduna bu fi jógee insha allah dana texe ca ëllëg yawmal qiyaam wax ne képp koo xam ne dafa diine woo al iman islam ak ihsan des na ko musal ci ak kéefër ak kàccoor bokkaale yàlla ndax al iman moo koy musal ci weddi yàlla ak nekkul xetuk moom al islaam moo koy musal ci kàccoor mooy def lu wuuteeg li yàlla santaane ndax boo saxee boo saxee ci ndigal bàyyi tere yi kon da nga ci ak kàccoor waaye al ihsaan muy sellal moo koy musal ci bokkaale yàlla ak dara ndax ni ko waxe bokkaale ñaari xaaj la daa am bokkaale gu mag ak gu ndaw bokkaale gu mag nag mooy euh, nga jël turam yàlla jox ko mbindeef loolu lenn ci bokkaale yu mag gu mag waaye bokkaale gu ndaw it mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi jàngale ci ay xadiisam mooy ngay jëf lu baax di ca boole yàlla ak keneen maanaam dañu war a gis tam ngay jëf lu baax jox ko yàlla yàlla taxul nga di ko def danga koy def ngir àdduna wala ngir ku la tagg wala ngir la xas wala ñu mel noonu kon daal lépp loo xam ne nit ki da ko def jàmm yàlla te def ko ngir yàlla rek loolu day dugg ci buntu sell te bi jàngale loolu lépp luy gis ko te def ngir yàlla ah muy al ixlaas ba tey kon waxaan na ne ba tax ma wax ne man daana bi imaani wal islaami wa kaana bil ixsaani wa itimaami شفي من كفر ومن تفسق والشرك عبدا بالجنان يرتقي waxaan ne saxoo ñett yi kat da ngeen xam ne mooy texe adduna ak alaaxira képp koo xam ne booleel ñett yi dana am li ñuy wax xotti baax xarqul aada dawaamu di salaasati dawaamu di salaasati saada jaamiuha yanaalu xarqal aada waaw dawaamu di salaasati saada jaamiuha yanaalu xalqal aada waxaan ne eh, njëriñul xam-xamu tawxiid la mooy da génne xol bi xol jullit bi ci lépp muy weddi yàlla ko ci gëm yàlla eh, waxaan ne alfiq day yéwénal jëfi nit ki lépp loo xam ne day dafa yóbbu njumte ak sanku waxaan ne barke bi nag mooy mooy defar mboolem mbiri jaam bi ba mu jëkk ba mën a mel na ko yàlla euh, sant mu mel ko ci ci wàllu biiram li mu wax ne nafxul aqaidi xurujul qalbi min kulli kufrin mu'minin bi rabbi wax ne alfiqhu nafxuhu salaahu saayi fi zahirin bila xasan wa xayyi euh, waxaat ne barakatul ihsaan islaaxul jamii bihi yafuusu bi qabuuli min mutii kon gis nga ñett yooyu gis nga jox yitte di ci leeral yooyu muy leeral ci ay njàngaleem waxaan ne képp ku jaamoo yàlla ci lu dul parce que ci sell yi nga xam ne kot xam ne kat du am ko xam ne moo koy womat jëme ko ci yàlla képp ku jaamoo yàlla te jaamoo ko ci parce que ci sell ñu dëppul sunna kon na xam ne ku sànku la man abada allaha bila aqaidi sunniyatin fa ma lahu min qaidi waxaa nekk ku sàkkoo jaamu yàlla jaamu yàlla te jaarewu ko ci alfiq kon xam ne la muy jaamu kenn du ko nangu wa man yarum ibadatillahi bila tafaquhin fa abadan an yuqbala waxaa ne eh, képp koo xam ne nag dangaa gëm yàlla di jëfe ndigal di bàyyi tere waaye boole woo ca ixlaas bi sellal kon nga xam ne la ko dama koy jural mooy mbugal ak mettit ay naqar man kaana bi man kaana muminan wa musliman walam yaabud bi ixlaasin fa maadin bil alam kon nag da ngeen jaamoo yàlla ci ñett yi bu defee yàlla fegal leen lépp luy réer ak lépp luy caaxaan fal taabudu bi fi salasati ilah yakfikumul yakfikumul xayya maan wa kulla la kon ñett yi daal mënta ñàkk ci jullit mu boole leen muy gëm yàlla ak eh, wéyee santaane yàlla yi ak bàyyi fitreem te di ko seetlu ngir yàlla mooy tax mën a nekk xaqan te di yàlla doon doy ci àdduna ko matal waxaan na ci it masaalikul jinaan ba tey bi leeral ñett yooyu ak seen am solo am solo am solo wax ne wa man tafaqaha bila tasawufi abu tafassuqin sarixin faarifi wax ne ku jàng fiq rek te mënu ja tasawuf kooku la mu koy jural mooy li ñuy wax ak tafassuq muy kàccoor ko waxee woon léegi nit ki buy jàmm yàlla ci ay cëram te xolam ba sellut sellulu ko ci yàlla yàlla yàlla taxut kon dëgg la ci kaw moom kenn du ko jàmm waaye ci biiram ci mooy am jafe-jafe ndax yàlla moom lam lam solo dëgg mooy xol bi waaye jëfi kaw yi moom dëgg balaa mën a mat day ànd ak jëfi xol mooy tax yàlla mën ko nangu hmm. ba tey waxaan na ne ku euh, ko xam ne daa jaar ci day gis li ko tasawuf waaye boolewu ci kon na xam ne kooku la ko koy jural mooy ñu wax euh, tazanduq waaw mu daal daal day mel ne ku murtad ñu wax murtad xam ne daal moom mi góorgóorlu ci tasawuf waaye nag boolewu ci alfiq ndax fiq moom ñu ko xam léegi mooy mooy jëfi cër yi waaw soo ko bàyyee nag ne yow da ngay toog tasawuf kon lam koy jural mooy tasanduq mu wax ne ku boole nag ñaar yëpp nag mooy ka nga xam ne nag kooku yaay nañu topp waaw wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladi xaqa lahu an yuttabaa kon kii mat a topp daal kii mat a topp fekk nekk njiit lu mat njiit mooy ku boole fiq tasawuf waaye boo ci jël bàyyi moroom ma saw doxalin bu rafet mu teg ci nekkat atte bi al imam malik moo ko moo ko yaxal axraja al xukma al imaamu maliku rahimahu rabi anhu maalik kon loolu la ci doon leeral rek ñetti xaaja diine ni ko suñ bi jox yitte soññee ci ay mbindam yu bare bëri ngir nit ki xam ne balaa eh, dina mat waaw mu boole ñett yooyu mooy tax dina mën a mat gannaaw bu loolu jàllee it mu indiwaat buntu buntu boo xam ne daf ko tudd baabun fil imaan buntu la boo xam ne daf ciy leeral ngëm yàlla la ca aju ñu ko waxoon ci ginnaaw ngëm yàlla juróom benn fonk la ci jiitu mooy jëmm yàlla ci boppam jëmmam sell ja ak ndam yàlla ci moom ak yi ko war nga xam ne ak ya dagan ca bu yooyu la ci jàngale insha allah xam naa danañ ci ñëw gën a yaatu ci yeneen jataay euh, ko tàmbalee ci na nga xam ne kat gëm mi nga amee ci làmmiñ euh, lami da koy tudd xol fas ko su defee cër yi jëfe ko kon ñett yooyu moo ci moo ci aju ñu koy wax sa làmmiñ fas ko sa xol say ko tax mu ne antiq lisaanaka wa amin bil janaan yaa talibal fawzi li afdalil jinaan ñuy na nga wax ci sa làmmiñ gëm ci sa xol mooy fas sa xol yow mi nga yaay sàkku ngeen yi àjjana bu ëllëgee na nga wax ci saw laaj yi fas sa xol ne anna ilahana al ilahu waxidu assamadul mukarrimul mumtahadu mooy ne rek yàlla suñu borom kenn la waaw al ilah al waxid moom yàlla mi suñu borom kenn la kenn la ci jëmmam ci ay menoom jëfam moom nag daa bëri melo lool bokk ci ay melo mooy ak samat mooy kii jublu ci aajo mooy euh, moom rek moo mën a faj aajo ku ñuy jaar ci moom aajo yi kooku ajo bi balaa fa ñu xaw a yaaj yaaj yaaj doom lay dellu bu doon wax ñu waaye aajo mënut a faju te yàlla andu ca mooy ak samat loolu ñëw na ci alxuraan karim ci ay béew yu bëri bëri qul huwa allahu ahad allahu samad ba tey mooy almukarrim mooy kii terale képp ku am teranga yàlla moo la ko jox waaye mooy al mooy fii wéeru lépp lu ñuy yàlla moo ci moo ci gën walan tajida min dunihi multahada ko wax ci suratul kahf ci alquran wax ne amul benn buur bu dul yàlla amul dara lu numéro moom wala benn numéro moom amul ndend amul kenn ku ci dara wala ci lenn ak noonu li wax soxna ak doom ak ay waajur yëpp da ko sori lool lool lool moo tax mu wax ne wala ilaha gayruhu wala shabih lahu wala lahu nadirun ya nabi wa jalla an saaxibatin wa waladi wa walidin wa jasadin wa xaladi kon yi mu wax fi yëpp dafa jëm ci yàlla suñu borom muy mu am lu koy nuru wala ndend wala soxna wala doom wala waajur wala aw yaram mooy làmb di ko daj wala ak xol naka noonu noonu la jombe ci moom muy am kenn kuy bokkaleeg moom ci nguuram bi ci lenn moo ci jëf la wala leneen kon moom rek mooy jëf lépp lu am moo ko def ak lu mën a doon moo tax ma ne wa an musharikin taala fil fial wa gayrihi tuuba li mudmin kon koy gëm ne yàlla amut dara luy am te moom ñu ngi ko waxee ci yeneen ay mbindam mais wala yakunu muassirun fi asarin ma dal yaqin laysa yakunu fi jamii al alamin muassirun fi asarin ma dal yaqin mooy amul benn amul lenn luy jeexital ci lenn lu mën a doon ku dul yàlla yàlla rek mooy jeexital mooy amal lépp lu am kon xam naa dañuy yemali foofu rek incha allah ci bindu tey bi bu yàlla dogalee bu ñëwaatee danañ euh, wéyal incha allahu taala di sant ñëpp di leen jégalu ñaan suñu borom defal ñu dégg topp te yàggal fi sëriñ Mountakha di sant mbokk yi topp jotaay bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم